الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ey yéen mbokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom ñaan ko mu julli ci suñu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di dénk ngeen sax di màggal seen boroom lu baree baree bari suñu boroom mooy akbar moo gën a màgg suñuy ndey ak suñuy baay moo gën a màgg suñuy directeur ak suñuy généraux moo gën a màgg suñu président de la république moo gën a màgg la nga xam ne mooy suñu bànneexu bakkan kon ni ngeen koy màggal màggal googu yéen ngeen xam ne yéen jullit ñi yéen a ngi ci bis bu màgg feet bu tedd bis boo xam ne ca la yàlla tëjee fukki fan yi gënoon ci at mi mooy fukki fan yi ubbi tabaski gannaaw loolu bis bii di bis bi gën a màgg ci at bi yépp comme naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe mu jagleen leen ko moom ñetti fan yi ci topp ngeen war cee bari lekk ak naan ak tudd seen borom subhanahu wa taala mbokk suñu borom subhanahu wa taala tëral na ay jaamu yàlla yoo xam ne nii mi ngi ko joxoon suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ñu ko jaamu yàlla yooyu bokk na ca feetu iid bu mag bi ñu nekk iid googu lan mooy njëriñam njëriñam mooy jegeel ñu suñu borom subhanahu wa taala gannaaw ba iid ñeneen ñu dul lislaam boo ko xoolee lan moo ci nekk mooy folklore ak bànneexu bakkan buy bànneexal seeni jëmm amma yu julit xamal ne iid daa ñëw ngir jegeel la sa borom moo tax li ñuy jëkk a def tey ci tabaski gi mooy dajaloo daa di bàkk suñu borom sabbal ko ñaan ko doog a def leneen lu ñuy defi it googu day ful suñuy tuyaaba day rot ci suñuy bakkaar suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam nim ñu ko jàngale suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ku ko màggale noonu day day wane na yow ragal yàlla mi ngi sa biir xol lu tax suñu borom delloo lépp ca xol moo ko xamal ne sa texe adduna sa texe allaxira sa mbaaxu diina yépp ma ngay balle ca sa biir xol la ngay wax say lammiñ di ko def say cër amu ca lenn lu am benn valeur ca yàlla lu dul loo xam ne yéene bu sell ak sellal gu màgg moo ko lal ci biir xol yooyee su yeneen alayhi salaatu wasalaam ne suñu borom def na ci jëmm doomu aadama benn lumb boo xam ne bu baaxee jëmm ba yépp baax su baaxul dara baaxatul loolu mbokk jurit mooy la nga xam ne mooy ab xolam mooy bëtëku nañu yàlla day seen jëf yi seen seen alal yi ak seen jëmm yi yàlla xoolul loolu la yàllay xool ci yéen mooy seen jëf yi ak seen xol yi looloo tax ba mbokk julit la koy itteel dëgg-dëgg du ne la mu jëf waaye la koy itteel dëgg-dëgg mooy lan la ci yàlla nangu moo tax suñu borom ne julit ña dëgg mooy ñay def la ñu waroon a def ba pare nag seen xol di tiit ndax yàlla nangu na loolu ay yéen mbokk julit xam leen ne it dafa ñëw ngir fàtte lu ñu suñu fondement diine fondement yooyu nga xam ne bi ci gën a màgg moom mooy màggal suñu borom waaye wéetal suñu borom suñu borom subhanahu wa taala lii nga xam ne mooy wéetal ko mooy benn garantie bu mu garantil ay jaamam ne képp ku ko deeyaale ajjana mooy sa wàccuwaay yàlla yàlla boole ñu ca waaye itamit mooy loo xam ne wax na ko ci ay waxam du deñ képp koo xam ne da ngaa ñëw yowmal qiyaama indaale fa bokkaale sa war a mooy sa wàccuwaay mu sant jullit ñi ñu def benn déclaration te mooy benn engagement benn jubluwaay mooy lan mooy man day sama julli yépp sama lépp lu may rendi sama façon bi may dunde lay tax may dee di joxe sama bakkan loolu yàlla kese moo ko moom moom mi borom mindaa fan yi amul kenn ku ma ko ci bokkaaleel ca man day fara naa nekk njëlbeenu julit ay bu doon àdduna yépp dañu xëyoon di bokkaale itamit man fasuma ca yéene bokk bokk abadan àdduna yépp bu ñu xëyoon bàyyi jaamu yàlla man fasuma ca yéene bokk abadan ay yéen mbokk julit xam leen ne bis bu màgg bi suñu mbokk ujaaj ya day ña nga jëm ca jamaraat ya yal na yàlla subhanahu wa taala sàmm leen yal na yàlla segal ñu natt lu ñu tegoon daaw waaye mbokk loolee lu ñuy lu mu leen di jàngal mooy ñi ngay dem di fartiliku benn taxawaa ci taxawaayu tawxid mooy borom asamaan ak suuf sant na benn jaamam ibrahim ne ko jëlal sa doom ji nga rendi ko ibrahima nangu dogalu yàlla boobu ndax moom xam na ne dundam ak lam am ak lépp yàlla moom mu ñëw ci doomam ne ko ay sama doom sama borom day nee na ma rendi la doom ji ne ko ay ay bàyyi defal li la yàlla sant waxu ko defal li nga wax wala defal sa bëgg-bëgg defal li la yàlla sant da nga ma fekk ma bokk ci ñuy muñ loolu suñu borom mbokk bu ñu koy won tey suñu xar yi ñu nar a rendi ni ñuy fàttali engagement bu famille bi war a am jëm seen borom commencé ca bàyyi ba gën a kawe ak jeune ba gën a ndaw doonte ne lenn ci borom xam-xam yi nee nañ booba ibra ki nga xam ne mooy ismaila mi ngi toll ci ay fukki at ak ñett waaye maadaama xamaloon nañ ko diine xamaloon ko tawxid xamal na ko yow kat sa dund bi moomoo ko yàllaa ko moo mu ne ay bàyyi defal li li la yàlla sant dañ ma fekk ma bokk ci ñuy muñ suñu borom nee na bañ demee ba jébbalu ca laa ko woowe daal di koy jote xar moo xam ne loolu ngeen nar a rey léegi ci kanam loolu it lu mu lay jàngal mooy yàlla moo moom ibrahim waaye yàllaa la moom xamal ne yàlla dana la natt suñ borom mu ne fokk dinaa leen natt ci seen bakkan yi natt leen seen alal yi natt leen seen njaboot ayu julit xamal ne alal njaboot la a alal nattu la yàlla li koy nattoo di xool ana naka ngay nga koy jëfandikoo ndax da nga koy teg fi neex sa borom wala da nga koy noosi waaye njaboot gi it xamal ne responsabilité la bu yàlla teg sa loxo yàlla xañ ko ay millions ci ay jaam boo ñëwee yowmal qiyaama yàlla dana la taxawal laaj la ndax la ma bëggoon njabootu julit mel ko ndax yow tegal nga ko sa njaboot wala da nga leen bàyyi woon ci seen bànneexu bakkan lii ku nekk si ñun war a góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax ca mooy ñu fexe delloo borom bi lam moom ca moom moom bakkan yi moom moom la nga xamee ni nii mooy suñu alal ak suñuy njaboot lépp loo xam ne nii yàlla nattoo na la ca nga defe ko nam neexe yàlla suñu borom nee na looloo gën ci yow ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا képp koo xam ne nii nattu naa ko la ma ko nattoo mu daal di koy dëggal yàlla mu ne man it dinaa ko dëggal def ko loolu yiw ci moom def ko loolu lu koy texeel ak di ko may yoon yu gën a mag ay yéen mbokk julit idde mi ngi ñëw di ñuy fàttali mais yonent ci yàlla muhammad mooy jaam bi yàlla yónni woon ci ñun loolee moo tax ba tey jii ñu ngi daje fii xam ngeen ne ni ñu jullee fii ñoo ngi ko gëjoon a julli depuis korité te pourtant bés bu nañu julli lu waral loolu mooy yonent ci bee ko jàngale noonu xam ngeen ne tey jii su ngeen ñëwoon ajjuma imam bi day xutba ba pare doogu julli lu tax tey imam ñëw julli ba pare doogu xutba parce que yonent ci bee ko jàngale noonu loolu mbokk julli sa mbooli mi jaamu yàlla ngalawaay xamal ne sa xel mi yàlla mayu ko ci dara lépp luy jaamu yàlla wuruñu koo roye lu dul ci yeneen ci yàlla subhan sallallahu alayhi wa sallam def ay ndigalam bàyyi ay tereen bañ a jaamoo yàlla lu dul la mu tëral gannaaw ba yéen mbokk julit ñu xam ne julit ñi it lam leen di fàttali mooy ñoom ñoo bokk ndey bokk bàyyi dañoo war a ànd jàppandoo donte ne xam leen ne mbokk julit julit ñi lenn rek leen mën a boole mooy dëgg dëgg rek a mën a boole loolu tey jii suñu borom yàlla defal nañu loo xam ne gën nañ koo am lool mooy ci sama yëg-yëg tenku jant sowu jant mboolum julite àdduna bi yépp tey lañu ànd di tabaski mbokk loolu nekk xiiwul bu rëy lii la yàlla bëgg ci ñun mooy ñu bañ a wax waa kër ma demba tey la waa kër ma sàmb ëllëg waa kër ma paate gannaaw ëllëg ñun ñépp ñu xam ne ay jaami yàlla lañu dañoo war a tënku ci li neex yàlla tënku ci ndigali yàlla bañ a tënku ci ndigali keneen ku dul yàlla loolu dong moo mën a tax jurit ñi ànd doon ñoo xam ne nii benn lañu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ay yéen ndokk jurit gannaaw ba xam nañ ne taxawaayu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nañ ñëpp dem mag ak ndaw jigéen ñi am baax sax nañ génn dem lu tax ndax war na nekk occasion imam fàttaliwaat itamit la nga xam ne mooy base diine ji mbokk wax nañ leen base yu gën a mag base yu gën a mag moo ñett yi ñu leen jiital mooy nañu jaamu yàlla buñ ko bokkaaleeg dara nañ tënku ci gannaaw yonent bi alayhi salaam waaye ñun ñëpp it nañ bokk booloo ci benn tariqa bokk booloo ci benn yoon waaye gannaaw loolu mbokk julit xam nañ ne lu gën a mag li ñuy defal yàlla ci kaw suuf muy julli julli googee seytaane am na ñun dox seen digganteeg ñoom ba xañ leen ko waaye it am na ay millions ci jaamu yàlla ñuy julli waaye fu ñu jullee ba pare ñu taxañ ko sànniwaat leen ko ndax julli ga amul dal julli ga amul ah siggi ba mat këpp këpp rek la ngal waaye mbokk xam leen na loolu du julli day leen julli ca waxtu wa day leen julli ca mbooloo ma yéen góor ñi gannaaw loolu def leen njëkk ca seeni way jur way jur mooy ci ñi war a gën a defal njëkk ci kaw suuf ak kum mën a doon bu dee ne faatu nañu bu leen fàtte di leen ñaanal foo mën a toll ay yéen ndaw ñi lii di ak mbokk xewi na tey xale yi xamatuñu lu dul xarit waaye xam leen ne jokk say mbokk loolu ci jaamu yàlla la bokk na doon yaa leen ëppale wala ñoo leen ëppale na doon yéen a bokk aada wala bokku leen aada waaye maadaama say mbokk la ñu ngal la waaye jokk leen rafetal ci ñoom même bu doon te ne ay yéeféer lañu gannaaw ba rafetal leen jëm ci seen dëkkandoo yi yeneen ci daal islam nee na wallahi gëmul ñu ne ko kan yow mi yàlla yónni mu ne koo xam ne ay dëkkandoom seen xel dalul ci moom ngir ragal ayam ay yéen mbokk julit moytu leen lépp loo xam ne day juru fitna ba baa bakkan di ca tuuroo rey bakkan lu garaaw la ca yàlla yeneen ci bi alei salaam ne nit day mën naa des ci diineem fii ak tuurul bakkan du xaraam gannaaw loolu ay yéen ndaw ñi bokk na lu yomb lool muy njaaloo rawatina yéen xale yu góor yi xale yu jigéen ñi dagg nañu fekk si leen seeni néeg waaye xam leen ne moog jaal bi duggoon sa néeg ñoo yem moytu leen njaaloo ay minute yu néew la yu la mën a teg gàccee ba abadan gannaaw ba moytu leen ak nguur jigéen moo gën a bon njaaloo moytu leen loo xam ne sunu maam yi boo leen ko doon wax dañ naan sax loolu mooy lan muy lesbienne te mooy tey jii biñ demee ba internet bi tasaaroo ay xale yu jigéen yuy dem di sàpp seen moroomu xale yu jigéen mbokk loolu ca bakkaar yi gën a garaaw la bokk ngan la waaye moytu leen riba riba day yàq alal day yàq barket alal gannaaw ba moytu leen nger nger ak maccaat mbokk loolu baaxul loolee dafay yàq sa sa sa dund jural la merum borom bi moytu leen di seede ay fen waaye gannaaw ba tamit lépp luy mandal moytu leen ko moytu leen yamba bi ak pion yi ak sangara yi lépp loo xam ne day muur seen xel loolee non seulement bakkaar bu garaw la ci yàlla waaye it yow ndaw day yàq say dund day tax ba boo demee di mag nga nekk mag bu doyee di mag bu ñàkk solo gannaaw ba itamit xam leen ne loo man ci lu baax defal ko mbokk julit yi suñu borom yàlla day tagg na ab yeneentam sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow day ci yërmaande gi ma def ci yow da ngaa nooy suuse ñeeb julit ñi amma bu doon da ngaa dëgër tàng xol kon nit ñëpp dem bàyyi la dee leen jéggulul dee leen baal ca dee leen doon ñoo xame ne nii da ngay jokkoo ak ñoom nga la way julit na nga nekk koo xam ne da ngaa bëgg a fas yéene am yërmaande ci mbokk julit yi nga la way yéen ndaw julit li ëpp ci doomu aadama yi tey ni ñu def ba réussir mooy seen objectif numéro un waaye yow defal sa objectif nan laa def ba société bi ma nekk ma bokk ci ñi ca gën a am njëriñ yéen ñi toll ci jàng jàng leen na ngeen yéenu yéen a nekk ay scientifique yoo xam ne tey dañu war a jiite adduna bi ngan la waaye ñu cay liggéey liggéey jàng leen liggéey ba jéem a yéen a jëriñ seen société lu waay nekk di ca nekk na ca jëmlu jaamu yàlla subhanahu wa taala bu ngeen ko defee rek yàlla jàppale leen sàmm leen seen lammiñ yi bu leen wax ci mbokk julit yi lu dul lu baax yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ne julit dëgg mooy koo xam ne julit ñi mucc nañu ci ay loxoom ak ay lammiñam lu ngeen man ci lu baax di leen ko wax gannaaw loolu mbokk julit xam leen ne diine lislaam nekkul diine boo xam ne nii danaan la na nga rafetal rek jëm sa bopp waaye diine lislaam mooy di digle lu baax di tere lu ban te xam leen ne loolu suñu borom yàlla mi ngi ñu koy wax ah ne ngalla waaye ne nekk ci yéen xeet boo xam ne dañuy digle lu baax dañuy tere lu ban te dañuy doon ñoo xam ne dañuy gëm yàlla loolu mbakk kon ñu góorgóorlu ci yéen jigéen ñi itamit xam leen ngalla waaye am ngeen responsabilité bu mag ci société bi bal seen responsabilité moo gën a mag ci société bi yéen yéen ñi nga xam ne yéenay yar njaboot gi ci kër gi yéenay école bu jëkk ngan la way xam leen ne da ngeen war a ànd ak góor ñi diglu lu baax di teru lu bon amul benn famille boo xam ne dafa baax lu dul seen yaay moo baax su ko defee ngeen teete seen njaboot googee xool lu ñuy wax teete leen ba ak bokkaale génn ci seen i lammiñ heure bu waat di wax barke sëñ diw wala yaa cheikh diw nga la ko déedéet waxal laa ilaha illa allah bu dara daanoo mu wax leneen nga la ko déedéet waxal subhanallah xool leen seen colum njaboot yàlla nattoo nañu ay batan but ba but waaye doomu julit bu génn kenn du ko xàmmee ak mari madeleine ndan la waaye ragal leen yàlla ci loolu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na jigéen ñoo xam ne sama gannaaw la ñuy ñëw seen yére day bëri lool waaye dañuy rafle lool ñooñu day waxumaa dugg sawara waaye duñu siin sax sawara ay yéen yaay yi ak baay yi bu sa doom sibburoo nga jaaxle bu sa doom feebaree nga jaaxle bu réerlee nga jaaxle nan lay tegoo ci yoonu sawara ngay ànd ak moom di xaqataaya ka reeka naan ay ataaya te loolu doo am benn taxaay bu ci taxawaay ragal leen seen borom te xam ne taxawu njaboot gi loolu rek moo la mën a garantir yàlla wëlbati ko def ko muy sedd sa xol ba baa ngay teqali ko ñoom heure bu ngeen dajee alaxira ci kanamu borom njaboot gi gërëm la nga gërëm leen yàlla boole leen tabal ajjana yàlla yàlla subhanahu wa taala defal ñu loolee ngal la waaye na ngeen góorgóorlu it jéem a wattu seen bopp jéem a sax ci seen kër yi te jéem a taxawal julli yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam nee na bépp jigéen boo xam ne fexe na ba ay jullem mat fexe na ba kooram mat topp ndigalal jëkkëram heure bu deeyee mboolem juróom-ñetti bunti àddina yépp lañ koy ubbil ne ko fu la neex jaaral fu yeneen kii jaar bu ko neexee jaar fa fu shuhadaa u jaar bu ko neexee jaar fa loolee nga la waay mbokk julit jigéen ñi fexe leen sax ci loolu ba yàlla defal leen loolu mbokk julit kon it gi ni ngi nii lii di ab tënk boo xam ne dañ koo tënk ci loolu ñi ngi jeexale itamit xam ne it gi day ci julit ñi ñëpp bokkuñu ko mbokk julit sunu mbokk ya nekk ca iraq bomb yaa ngay dal seen kaw ñu nekk Syrie bomb yaa ngay dal seen kaw ñu nekk Yemen ñu nekk Turquie ñu nekk feneen ak feneen loolee ñoom taluñu it ñàkkul it ay yeneen mbokk julit ña nga tëdd ci lalu hôpital ya ak a bari suñuy mbokk julit ñi ngi leen tëj ci biir kaso yi te ñooñu ñëpp mbokk dañu waroon a seetu waaye ñi ngi ànd ñun di ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi borom natt yi yal na teggil leen seeni natt ci jàmm yal na wàcc ci seen xol ak ngal xel goo xam ne dañ ko mën a dékkoo yal na yàlla nangul ñu suñu it yal na ñu yàlla sippil suñu mboole ñu bakkaar yal na yàlla yëkkati suñuy daraja yal na yàlla may ñu xol bu sedd ci suñu njaboot yal na yàlla sàmmal ñu suñuy mag yal na yàlla booleel ñu suñuy xol yal na yàlla rafetal suñu mucc yal na yàlla wàcc jàmm suñu réew ñi ko jiite yal na yàlla jubal leen ci loo xam ne njëriñu réew mi da cay nekk ci loo xam ne ngërëmal borom bi da ciy nekk yal na yàlla subhanahu wa taala may ñu nawet bi di nawet boo xam ne dana ko jeexale ci jàmm ak xéewal yal na yàlla subhanahu wa taala may ñu ajjana yi gën a kawe mu nekk suñu wàccuwaay yi allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد